dikkati naa ñee nga naan bon rentrée ñi naan bon santé économique bu réewum Sénégal tribune yéene kaay naan man dara ca amul rentrée ba moom rik fa sa baaraam ma ñëw waaye bon santé de léconomie économie sénégalaise bi yéene kaay bi dey média bi naan man mane la am nay mbir yoo xam ne moo dijjati daal di sànni géej te xam nga ni nag dëgg du teew ñuy nataal tribune yéene kaay naan ko ministre des finances jëlal chaise toog ma xamal la ni Sénégal ma ne la def ngeen emprunt obligataire jaarale ko ci marché financier bu UEMOA lu toll ci téeméer ak ñaar fukki milliards weeru mars bee ñu génn la weeru avril ba ca topp ci wennu at wi ngeen defaat génneen emprunt loolu lépp nag ngir projet Sangomar bi ngeen ne daf ñuy génneel pétrole lépp nag tegu ci ndoddug sénégalais yi ndax ñoo cay dee daal di koy fay ñu ne deetawaay ma ne la waxtu woowu nga xam ni yéen a ngi dem di defi emprunt te ngeen naan Sénégal moom ci wàllu koom lépp baax fayal laaxu turbine yéen kaay naan leen dara baaxul lépp seer ci réew mi ñu nekk te naa la xamal yow ministre la waxtu wa nga xam a ngi taxaw naan Sénégal lépp faañ ci wàllu koom fii nag la njëg seeree kay dépense bi ma ne la daanaka ngir góor góorgóorlu matal ko waaye dana xëy daj loo xam ne mburu tëju ko daanaka ca taal ba ñu ne déeta waaye location cher ba jéggi dayoo te tafu nag ci góor góorlu ay facture yoo xam ne bu gën a cher sa morom nga ne biye raw dem leen xool facture courant fi mu ne dañu koo yokk ba ku yor sax facture jooye la desee ñu ne déeta ndox mi ñëw doggali askan wi te koomu réew mi nee ngeen mi ngeeg bon sante waxtu woowu ma ne la Sénégal koom gu taxaw xaalis liquidité amu fi tax ba si diirub ñaari weer ngeen dem le bi ko koppar gu taxaw daar daar ci kees yi moo tax ngeen dem def emprunt yi tey nag bu ngeen nee réew mi daal dox na yéeni kaayib dee média bi naan damay laajte ban Sénégal ngeen wax du Sénégal gii nga xam ne fi la góorgóorlu di xëyee di fi gontoo te bu wàccee du yóbbu dërëm kër ga du fanaanoo depans njàqare di ko tongal ci waxtu woo xam ne lekkool baa ngi ubbee ki jafe-jafe Dakar Times naan man laataa ngay dem ci jafe-jafe ubbi gi ma xamal la ni jafe-jafe yi remaniement am na ci réew mi te sax remaniement gee Dakar Times naan kon président Macky Sall tegal ci suuf koy defee moo baaxul bari na ay mer ba futt yoo xam ne am na ci sa biir yow président Macky Sall muy APR muy sa coalition Benno Bokk Yaakaar te na la leer ni ministre yi nga xam ne dañ leen di génnee ci gouvernement gi fa yàllaaxu yow président Macky Sall duñu campagnal amadu Ba am na ñoo xam ni wekk nañ seen yaakaar fi ne ngir nekk ministre yow président Macky Sall boo leen jëlulee fa yàllaaxu duñu campagnal amadu Ba la gën kay moom moo di ministère yi nga xam ne amul ku fa muy mbay gi di agriculture di tàggat yaram sport waaye tam càmm ji nga jël fu ne roof fa kenn ndax nag boo soppee gouvernement gi dàq ay ministre seeni militant ma ni la sàll yow duñ leen woteel wala boog nga def leen rek daal di écarté nag yow président Macky Sall ña nga xam ne nag ay ministre lañ waaye duñu ay politique le soleil yéen i kaay naan kon politique fi mu ne moo na a tasaare réew mi mbir yaa ngi gën a métti nag ci élection présidentielle yi daanaka ma ne la fiche de parrainage téeméer boo jël juróom fukkee jël nañ ko barki démb ña nga woon ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ciy candidat démb ña nga ca téeméer ak juróom fukk daanaka ñaari téeméer candidat benn moo ca manqué te tey jii benn ba day mat ndax ña nga wéy di retiré fiche yi gars yi Ousmane Sonko yi moom fas yéene ca xabal président Macky Sall dem kalaame ko ca tuattekaay bu gën kawe ba le témoin yéene kaay naan man Ousmane Sonko kay gars yi dañ koo tere jël fiche Ousmane Sonko jàggar jàggari kalaame leen yemu ca moom Ousmane Sonko fas na yéene nag jommal président Macky Sall ndax nag candidature am yu bari yi ñu samp lu ci ñàkk kenn koo xam ne ma ne la ca Pastef dana jàllale Le Soleil naan leen ma ñëw rek am na kenn koo xam ne moom dafay xalifa Babacar Sall lu doon na beneen xalifa Babacar Sall soobu ci làng gi ñafar ak xalifa Babacar Sall ubbi ci l'enquête ngir xool nag kii kumu en tout bi moom le soleil naan maan fanweeri million la ko amul tàbbil géej le témoin naan maan société civile it ña nga ngémbul Ousmane Sonko naan formulaire parrainage nañ ko ko jébbal mooy dëgg lii ñu teg Ousmane Sonko ñaaw na wala Walf Quotidien naan man yeewi askan wi daal kenn demul ñu des ñoom daal fi mu ne chacun pour soi la ku ne ma nga ngémbul boppam kaas gi kaas gi ma ne la ba xëcc fiche parrainage jotee ku ci nekk da nga dem ni yoon xëcc sa fiis ne ciel ak moom kenn xeexatul ndax kenn kenn waxalatul kenn vox populi naan en tout cas présidentielle bu nar a neex wala ñaari téeméeri candidat daañu ko ëpp réew mi yéeni bi naan man ba tey waxtu woowu moom président Macky Sall day ma nga dalal njabootam ña nga xam ni ñoo meroon moom Sall nay délégué yi ci boppam dina leen wutal ñu leen wuutu ndax mer gi lay bañ fi ne ci coalition tribune yéen kaay jox kàddu Birame Mbaru Diouf coordonnateur bu mouvement action pour le développement naataange ADN di responsable Benno Bokk ca diwaanu Fatick di ñaax mbokk mbokku APRam yi waaye tam mbokku bennoom yi naan leen fi mu ne xëccoo geeg xiiroo ngeeg ŋaayoo gi waaye tam hésitation gi na dakk ma ni la biram naan leen ba ñu bokkee bennoo bokk yaakaar ngor moonu ci boole woon te ngor googee dafa war a wéy ak président ma Macky sal mooy nangul koog dogalam ànd ak candidat wam bii woteel ko vox populi mel ni ku naan kon dina métti de ndax maître El Hadj ma bokkoon seen ndaje ma démb ci boppam dafa gestu moom ne leen man candidat laa te ma nga ci seen biir tribune yéen kaay Ndakaaru président Macky Sall na ci wax directeur bu ñu mën a fal terewul poor boobee di dund jafe-jafe yoo xam ni maar day taali waxtu woow école a ngi ubbi jàngalekat yi manqué ba maar day taali ñu ne déetawaay ña nga xam ne ñoo fi des ak ñeew fas yéene jàmmaarloo nguur gi loolee nar a indi jafe-jafe ci année scolaire 2023 2024 bi yéeni kaayub dee média bi naan maan fim ne moom ca diiwaanug maatam ay téeméeri jàngalekat ni ki démb ubbiwunu ñëwuñu ca diiwaanug Louga téeméer boo jël fanweer ci ndongo yi amuñu extrait de naissance Biram bu sayam sa xamle ni ndoorteelu njàng mi day nar naa métti ren jii ci réewum Sénégal 24 heures yéene kaay naan maan njàng mu métti ca Matam moom ñetti téeméer juróom benn fukk ak ñeent ciy jàngalekat ak professeur dañ leen war a remplacer ca Sédhiou juróom benn téeméer juróom ñaar fukk ak ñett ciy classe ay mbaar la ca Louga nee ñu fukk ci professeur manqué nañu juróom ci école primaire amuñu jàngalekat lu toll ci ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent ciy classe ay mbaar la lu ëpp fukki junni ciy taabal bank daal di fay manqué SAEMS si kaay bi naan maan njàngum ren bi xel dalu ci ndax bar na ci l'école yoo xam ne fi mu ne ndox mi nangu na ko yenn yi moom dafa daal di saxub ñax ba mel ni ay tool te ubbi teeg l'école gii dafa àndut ak waxtaan moo tax jafe-jafe am ci l'info yéen kaay naan man recteur bu UCAD ma ngay wax ñoom intellectuel daal di wax nag ci réewum Sénégal ak jafe-jafe yi nga xam ne am na ko xam le ni fitna ci wàllu politique mësta amee bu toll nii ci réewum Sénégal vox populi naan man en tout cas politique bi jaxasoo na candidat yi bëri nañ te réewul am na ñoo xam ne ña nga booloo ngir xeexal seenu gox ensemble pour Mbàkke dajaloo diggante sëriñ Oustaz Amina doomu xalif général ba woon El Hadji Baara Mbàkke Xaadim Bamba Sarr Abdoulahad Lo Aliou Diouf Serigne Saliou Mbaye Thiatcho ak Birane Fall fas yéene joyanti Mbàkke daanaka ñetti téeméeri million ma ne la jël nañ ko ci seenu gafa ngir jàppale Mbàkke googee waxtu woo turbine yéen kaay naan man en tout Sénégal ñi ngi ñuy dig ñongoo xam ne gisuñu ko séenuñu ko laas naan man waxtu woowu mun Mountakha Mbàkke taxawal na ak fatwa ca Touba moom xalif général bi ne léegi Touba képp ku fay sampub daara wala juma da ngay xaar autorisation tam supervision